Assalamualaikum bokku talibé bokki mbokki jullit yi maa ngi len di nuyu di len siyaar di len balu ak te di len bal ak di ñaanal sama sang bu tedd bi di Malick ndjay lepp mom la ak baay Papa ndjay dañu ñak ki ñaan na pa bu daan yoni seigne salim bu ko xale yi ne mbaa du mu ne balen ko rek mu dem seigne salim ngi day dem marché day dem bikit ba fu ko neex demal bopam te kenn du ko amat te lepp Papa ndjay lu ñu jën mooy ndax ba ma ko fi indi day raam xamul dara mu dem tey ba mënal boppam di demal boppam ay programme bi ay deux heures ci guddi la ma fëgg na ubbil ko buntu ba mu tëgg bay ñibbisi te damaa noppal ndax dana ma yaay demal tey bàyyi ba ma jël mu sama yoon tëddal nga noppalu ma doog a dem sama yoon di ñaanal Diop mi Diop faramaareen ku baax ku gore Diop jébal naa la sama bopp ak sama njaboot àddina ba àllaaxira su ma deewee tey na nga jënd ciangaay samay doom dinañ ko am ak sama borom kër waaye na nga jënd ciangaay nga nga nga nga yër ma ko ma denc ma denk na la sama Modou ndjay mema amut lu may moom ak Binta ndjay ak Baba ak seigne saliw Mbacke mi ak Cheikh Mbacke gayne Fatma ak Sidna Omar bun Khattab ak seigne fallo denk na la ko adina ba alakhirah denk na la Binta ndjay sama taw ndax bari lewu ma teg ku lim juum la sama bop adina ba alakhirah di ñaanal sama yaay mais yàlla guddalu fanam ndax lépp moom di ñaanal dëkk yu baax yi ndax damaa tàng ba tànj du ma fen damay wax dëkk te ñoom ñëpp ñu may muñal kenn ci du gis sama tàngaay te leer na ma ne man tàng naa te ñu may muñal rek nekk ak man surtout sama sang bi nga xam ne amul benn problème moom du wax te jooyut jaabo gërëm naa la maa ngi lay sant di la gërëm yaa ngi may sa mboobu di sant sama doom yu baax ay ñoom Ali Jaay di sant Baye Serigne ñi gore si yal na barkeel bàyyi sëriñ ñi lu mu am yal na yal na mel ni dugub bi suuna kooku luy lekkas gor bu ko séenee day dal di ŋaan kooku moo gore te fàttewul dara ndax buy tëggandoog nijaay yi kii ba ma ne ko sëñ Saaliw dafa bëgg a gis waali mu ne ma amatuma benn problème lu mooy sëñ Saaliw gis waali di ko kafe ba jël sëñ Saaliw yóbbu ko ak ko ci kaw seen waali bi dama koy woo téléphone ba ci bëccëg dama koy woo di ñaanal daam seen kulim juum man damaa bari ay doom te ñëpp ma bëgg di ñaanal sama doom ju jigéen jee ci bu dool diw yi ak saaku ceeb yi di ñaanal sama doom ju góor ji nga xam ne bu ma jooyee mu nax ma lu mu am jox ma ba takk jabar ko ci samay loxo di mën njaay nii yal nañu barkeel kulim juum mais yaay booy kulim juum mais tey lu bu bu amee grâce à Wally Ballago sekk tey lan ngay wax sénégalais Wally Ballago Seck ku xam-xam ko ci social tey Diop lii mu def tey euh, da ko def grâce à Wally Ballago Seck parce que bu doon toon Wally tey Diop du gis euh, nga xam ne mooy Serigne Saliou tey Diop lu mu def Wally moo tax mu def ko da ciy am doole lool ndax xam nga li waral lool ñun dañoo dem ci programme Fallou Benzema bi mu mujjul yee yàlla antul loolu Diop dagg ñaari ticket Wally Seck benn bu ne 10 la yeb ma ci oto ba ci bunt bi wàcce ñu ne ñëw leen ngeen dugg garde yi ne ñaan nañ bàyyi saal mi dugg ndax mën na dugg gaañu ci biir wala dara ndax ñuy xeex si biir programme bi ndax soirée la tu soirée booy booy ko moom bi ñu jógee noonu Diop mii dama jël leen seeni ticket bu leen neexee jaay lu leen neex def ma jël ko maye sama ticket maa Baye Sall mii Diop daal saq xaas bu nooy népp daal di jox Baye Sall ne ko toogal xaar ju ñu ngi ñëw mu ne ma yaay dugg seetaan ma ne ko mënumaa dugg bàyyi Baye Sall ci biti waali dugg ba si biir daal di yebal garde corps bi eh, kii Cerno na ko demal ga jëlal ma sëñ Saliou andil ma ko garde corps bi génnaa ñëw ne waali sekk nee na ngeen jox ko sëñ Saliou ñu ne ko sëñ Saliou nañ ko bàyyi fii moo gën ñu gaañ ko si biir Waly xam ne li ñu wax dëgg la Waly ne tekk ba génn sëñ Saliou di ko xaar ci biti mu génn yem ci sëñ Saliou mi daal di sëq xaalis ci poosam bankal ko sëñ Saliou la ngaa ma ko di ko raay ci bopp ba ab diir oh mu ne ko man Baye Sall dama laa bëgg te ñun waaram daan lu ñu xewleeti boo yeboon jóg boo doygee buñ la ko waxee buñ la ko waxu dañ jógal ndax xes nañ la def ci suñu xol yi te mënatuñ koo dindi Diop la ñaanal ñaanal dinaa ñaanal sa ñii la toog ndax dañoo baax munon nañ la bay yow rek nga ta sa oto ñëw andil ma teraanga lii lii réeloo ko waaye ak ma ko réel yow ma réel li fukki dërëm rek ko la ko jox ci ñakam dang koy sant diko ko diko ko ñaanal fan bu gudd ak wér gi yaram job yalla nga barkel Diop job yalla nga tolli soror ba ca Touba bari wu may wax de damay wax lima ma soxla di wax li nga xamanteni bi tay buma bu dina na li ya nday Diagne moko ko wax te ken momu sa bakkan bakkan warul la ken xamul fu muy dagge ëllëg Diop comme man sama baay damaa ñaanal ba ma toll fii sama ndey liggéeyal na yow sa yaay liggéeyal na la sa papa ñaanal na la wax nde ñaanal naa la ba si nekki tey àddina ba àllaaxira yal na yéex yal na nga gudd fante yal na nga barkeel nga ne ma dinaa la jëndal lal yaay sampal la ko ma ne la lali lan nga ne ma sëñ Saliou nee na dañ na ko ana sa téléphone mu ne amuma téléphone taluma téléphone te sama yaa amul lal ba muy tëdd nga ne ko yow sëñ Saliou ba si tey di nga am tey lal téléphone léegi nga ñew nako ko ba nit tay bu neexee seigne Touba dina la indi sa téléphone dafa am tardement yow bo diggé seigne saliw aljana dina ko jël man bo ma diggé makka damay contane ndax xamna ni bo ma diggé makka ding ma yobbu makka yal na nga gudd fa sa yaay ju bax ji limu bëgg moko xam yal na ko bur yalla defal ndax bu ko bo joggé bay wara ñew mu ne la job fo jëm wala ko yót li te ba ngay ñew man ma ngi la gis ngay istati sa yaay dila ñaanal sa yaay dalaa ñaanal de waaye man mii sa deuxième yaay ñaanal naa la te bés ni tey àddina ba àllaaxira dénk naa la sëñ Saliou mi ak ay magam yal na nga barkeel jërë ngeen jëf kontaan naa ci sama dëkkandoo yëpp sama xol sedd na mënumaa wax ak samay mbokk ndax dem ba tey samay mbokk a woote di wax ñi ma bokkal ndey ak baay ay ñoom Xaadim Jaañ Papa Jaañ sama jabari càmm ñi ay ñoom Juma Ngom Ndey Njaay ñoom ñëpp a ji toog Mariama Seen Cuuj Booy Juma mu ndaw Ndey Ndumbe dafa jaañ sama rak kulim juum baabu sàmb alaaji mii di sama doom di sama xarit moo deuxième manager u Baye Sarr ndax tey bu bu jóob tooy teewul alaaji mii da ko yóbbu ba xaadi guddi mu andi ko ay euro lañ ko baatare barki dem ci programme bi alaaji da koo gàddu ba ñëw ne ma yaa ndey li ay euro la baay Sarr lañ ko may la mën na ko jël ci mu ne ma lew na ko doom dabu Baye Sarr ci dara jërëjëf di kontaan ci ñëpp ah, waaw macha allah macha allah Baye Zal yan kàddu ngay sànni tey ci nga xam ne tey sa mag moom la def muy jóg. maa ngi nuyu ñëpp di naan tonton Diop ma koy ñaanal yàlla ko yàlla defal jàmm defal ko xiiwal ci barki Serigne Touba di ziar ñëpp nag di ñaanal Baye Papa Ndiaye yàlla ko yàlla xare àjjana moom li ma rek yàlla ak moom barki Serigne Touba te aussi tamit yaa di ziar ñëpp di ziar Assis sama mag moom Pambaay. di ma jàppale fu ma jëm li may yóbbu di may sama bopp maa ngi nuyu ñëpp Aliou Diagne maa ngi leen di nuyu ak jaabo bu ma demee seen programme ñu ngi ziar ñun ñëpp di ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal seen fan waaw Frama ren ku mel ni Wally Ballago Seck parce que tey bu Diop defee li Wally euh, grâce à Wally Ballago Seck lan ngay wax ci Wally ak bi nga ñëwee bokk bu koo gis moo tax li am tey lan ngay wax ci waa Ramzane ak maa ngi ñaanal waa Ramadan daal ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal man bu ma déggee ne Wally mooy tëgg fële saatu njaare man yaay damay dem sama yaay dem yaay loo bëgg ci Wally dama la koy defal mhm. xottil ma yërëb bés pul ne ma dangay dem ci Wally mhm. léegi tamit Dakar bi mu ne ma dangay dem ngàcc jaañ sama géer xottil ma yërëb bu rafet yërëb balaa bi ma soloon noonu mhm. sama géer ngàcc moom ma ko xottil waaw tey bi nga ñëwee euh, waal yi ñëw fii Diourbel sa dëkk sa réew nga dem stade euh, bi nga yéegee yéegee ci kaw chaîne waal yi avant ngay joué lan nga gën lan nga sentir. avant may joué maa ngi doon sentir ngéwél rek. Mhm. barke ma bi ma yéeg bi ma yéegee dama kontaan. Mhm. dama dama doon xam na géwél ñëw na ci ay géwélam. barke yi leen ci bi ma ñëw rek. Mhm. boo gisee ni kontaan. nga da macha allah ñu may kii nga yéeg joué. waali kontaan waa Ramadane yëpp kontaan ba mission yëpp dañoo mujj di jooy ci yow ndax yéemu ni nga mel ba pare incha yàlla may la benn don bi ci ci li nga xam ne mooy musique rawat na tama bi nga yor bi nga yéegee joué ak waali ngeen ànd tempo macha allah bi nga bi nga lan nga yéeg affaire bi nga wàccee. sentir nga en fait euh, liggéey ak waali pour euh, ci orchestre bi wala. sentir naa lépp man daal maa ngi tàllal Papa Waly loxo maa ngi koy tàllal loxo. Mhm. képp ku ma bëgg a jàppale. tey nag ñoo jógee Dakar déplacé ñëw fii lépp loo xam ne da ko bëgg a lancé message mu jaarale ko ci Diop ak Wally Ballago Seck rek incha allah wax ko may nañ la waaw man daal su ma sañoon dinaa utal sama yaay fu mu dëkk. Mhm. ndax kenn amul lu dul yaayam. Mhm. man ba ma nekkee xale fii ñoom yaas caam ñoom ba doon toppatoo di ma boot. Mhm. di ma defal lépp. kon bu ma màggee ñoom ñëpp laay sant <laughs> te aussi tamit ñoom ñëpp bëgg naan bu ma yàlla mayee xiwal ba si dinaa ma xam ne ñoom ñëpp ma wutal leen kër <laughs> waaw tey euh, sa Diop Diop sa mag sa lépp sa tey def geste bi tey jógee Dakar déplacé wu ñëwal sa andi sa ju màgg ji tey euh, bi mu egsee nga gis oto bi gaare nga gis lal bi ci kaw lan nga sant automatiquement damaa kontaan mhm. ndax barki Seydina Mohamed man ku ma dajal mu ne ma Diop Wale fekkee moo ne la day jëndal sa yaay lal mhm. Diop Wale bu la waxoon léegi nii mu jëndal la yaa boo nga toog di ko xaar. est-ce que xam na ni parole la daal. barke Serigne Touba képp ku ma ko wax mu ma jóg jóg da lay jëndal ak képp ku ko gis mu ne ma jóg moom. du ko xam la wax dina ko defal. ndeysaan mu ma Serigne Saliou. Mhm. lal moo lay yóbbu si waale toogal dinaa la jëndal lal. Mhm. barke Serigne Touba mhm. Mbacké waaw. kontaan nga daal. man daal maanaam kontaan naa daal. Euh, à part Waly Diop. lan ngay wax sénégalais yi ak sénégalais yi nga xam ne dañuy dox ci social lan ngay lancé message pour ñu gën la jàppale parce que fii ñu ay julit lañ képp koo xam ne am nga rek da war a jàppale sa doomu euh, sa moroomu julit lan ngay lancé sénégalais yi. man daal maanaam képp ku nga xamante ni daal day dox si social mën a jàppale doomu aadama yi. Mhm. man nag mënuluma sama bopp sama loxo jotul sama digg ginnaaw. dëgg la mënuluma sama bopp dara nag. Mhm. am na xëy na ñu mun ñoo mu war a mun a jàppale te maa ngi leen képp ku mu war a mun a jàppale nga jaar ko ci Diop sama mag sama lépp am naa moom képp ku mu war a jàppale rek boo ko jaaree ci Diop dinaa a jot wala képp ku mu mun a wax dara boo ko waxee Diop dinaa ko allah kontaan nga waaw la gën kontaan man kontaan ba bëgg a dee ndeysaan maa ñu tuuti feeñ ñu dem ñu looy feeñ ci Diop